Père Thiam maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. maa lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. naka Diourbel. ñoo ngi sant bu baax. naka làmb Diourbel. ñoo ngi jéem de ngi dox ndànk-ndànk comme Dakar rek. non Dakar moom moo dàq Diourbel ci ma. non foo ko tënku ko nag. Ah? foo ko ma ñëw fi tabaski. gis nga li ah, boobu moom làmb ji toj na fi. waaw ah, mu ngi comme dañuy doog a commencé nag suñu suñ commencé waatee nga ñëw fi gis waaw. jiite làmb fii ci kuréelu Diourbel yomb na. waaw yomb la yombul yomb la ci kaw nga gëm ne nga war a jiite def li nga xam moom la si laajte rek nga yomb mais soo buggee def yaa ma neex du yomb mais yomb na si ñun man moom yomb na si man waaw. drapeau chef dafa am Kaolack. Jurbel ñëw indi ay athlètes jël ndam li yóbbu ko da nga koy téye wala da nga koy delloowaat. dama koy jëlaat comme maa koy organisé maa koy organisé dama koy jëlaat fii lañ koy organisé ren combat a Sène Junior Calme Ndour fan la la fekk. non ñaareel na fekk dafa fekk ma am malade ci hôpital bu ma bu ma téye mënumaa ñëw loolu kese la woon. combat bi ci ban moment nga ko seetaan ci moment wu combat bi wala après combat. non après combat bi laa ko seetaan après combat bi lañ ma yónnee vidéo ma seetaan fekk maa ngi biir hôpital toog waaw. avant combat bi déggante nga jëg Eumeu Sène. dañuy déggante chaque jour bi ko jàppaatee sax maa ko wane ko sa combat jàppaat nañ ko. dañuy déggante avant comba après combat ci combat ba ci après combat bi ñoo ngi déggante woon. muy bëre Calme Ndour yan conseil nga ko ci jox ba mu génn ci combat. waaw newoon naa ko waaje mbappat bi la yaakaar su ñëwee ci xeex bi moom day ñàkk loolu laa ko waxoon bi rek la yaakaar waaw. bi mu bëree nga gis ni mu continuer comba bi entendre ko ba am ba am ci ndam lan nga ci gis ni xale bi yokk na ko ci. Eumeu Sène Junior ak lan la war a bàyyi. waaw mais da ngay jàpp ne booy amoon danger yëpp moom moo leen éliminé si lamb ci mbërëntaan la dari fam nekkoon la rek ñu ëmb ko muur ko moo tax mun fi feeñ mais fii topp naa ko ay mbapat maa ko njëkk a tëgg fii Diourbel moo ko Cheikh Niang moom maa ko njëkk jox avance dëggal ko lamb moo ko Cheikh Niang kon xam naa li mu mën a xamuñ ci woon Cheikh Diakha. maa lay jaajëfal